xale yi dama leen yebal ñu dem toole ci ngoon bañ demee sàmm yi fekk leen foofu dugal nay gàtt yi ci biir tool yi bi ñu dugalee ci biir tool yi xale bi ñuy wax Aliou dàq leen ñu deti leen delloosi ci biir tool bi mu dàqaal leen ñu dàqal ba ci ñetteelu yoon ba bi mu leen dawee moom ñu kooku moom ñoom Aliou moo leen ëpp doole mu dàq leen bi mu leen dàqee nag ñeneen ñaari mag ñi nga ne woon ci kaw ñoo daw dàqe ko ak jaasi Malick daw di ko di ko ci lañ ko gor ñaari gor gor benn bi ci loxo lañ ko gor benn bi ñu gor ko ci ginnaaw gor gor yi metti na ndax dagg na saddit dagg na yàq dagg na loxo bi dagg na saddit dagg na yàq ginnaaw gi moom xotteeku bi moo ñaaw waaye laalul yàq waaye loxo bi moom dagg na yàq dagg na dagg na saddit waaw moom mu ngi mu ngi si bolis bolis waaw léegi ñu gaa yaa ngi ko téye foofu di def enquete bi waaw dama ko xëy yebal ko hôpital bi ma ko yebalee hôpital pour mu ñu ñu faj ko ci suba si police fekk ko fofu jël ko ñew indi ko foofu wut ci bi bi moy 3 fois yo xam ni at mu jot ci benn place bi la waaw ci benn place bi la te itam du at mu jot ñoo ñuy ndax tol mom demut fen fam tok la tok jur moko fay fekk wala nit ko top jur kon su ci dara xawé man na wax ni ñom ñun xeyna ñun ñoo mo alal ji way ñom togn Dah def ndax nit ki su fekke tolam la ne di liggey nga ñew fekk ko bëgg ko yaq mu tere la ba ñetti yoon nga su ci histoire xamee yow yaa ko provoqué waaw léegi nag ñun wax dëgg yàlla néew na ñun maanaam néew na man néew nañ ci doole daal mais fépp foo xam ne ni yaakaar na ne suñ fa jooytoo mu faju ñu ngi leen ay tàllal suñuy loxo di leen wax ne ñu dugg ci affaire ko affaire yi amee xale yi dañoo da ñoom dañoo daw ñibbi seen kër xale yi daw leen topp leen ba ci biir kër ga mais bañ demee ba àgg ñoom dañoo génne ay fetal di ci fetal ci kaw ñoom pël yi fetal waaw fetal ay fetal ña fa demoon man dew ma fa woon boobu maa ngi indi malade hôpital waaye ña fa demoon ay fetal la wax ne moom la pël ñu jël di taal ci kaw pour bañ gars yi àgg ci kër gi yàgg naa am yàgg naa am yàgg naa am yàgg naa am yàgg naa am loolu loolu ñun ci loolu la ñuy dund di ko yàq suñ tool yi ñun daaw suñ tool bi biñ ko naafee ba pare ba nañu roñ ngooñ mi ba sarsi bu mujj amul minute benn xamal dara de seconde doo ñëw suñ tool fekkoo fa nit nay xam nañ saawo am nañ caawa dañ ci nangut a jaar mais am nañ caawa dañuy tooñ am nañ caawa am nañ caawa saa président bi commissariat ñëwoon na foofu ñu dagg saaw yëpp saawa yaa ngi fa buñ fa demoon mën a la saawa si a ngi nii saawa si a ngi nii mais duñ jaar ci saawa yi waaw ci biir nawet bi bi lool bi tool yi kiyee moom ñu ngi doon jaar ci saawa yi mais buñ demee pas góob suna yi dootuñ aw saawa li ma xalaat mooy su fekkee dem nañ ba nga xam ne nii état bi ñu waxuñ ci dara fi ma jëm mooy mooy mooy reporter sama bopp rek parce que gars yi nee nañ balaa balaa nit de dana wéq waaw comme ñoom dikk nañ ci ñoom yoon wu ci ne dem nañ ci yoon mais saafarawul kon léegi li ci des mooy su fekkee ne ñun foofu rek lañ mën a wéeru buñ buñ buñ dala ci suñ kaw liñ mën ci matuwaay pour defanteeg ñoom ñu defanteeg ñoom rek li ñu xam jël